barakatuh mm-hmm. mais nuyu bàyyi laa nga nuyu internet yi mm-hmm. <laughs> ndax gëj gise gi fii mm-hmm. di leen bàyyi xel itam di bàyyi xel sans limite itam di leen wax ni ñu ngi leen di suivre bu baax a baax jërëjëf xanaa xaw a gëjee rek waaye moom xel yi ak xalaat yi ak xel yi yépp ñu ngi ci alhamdulilah yow xamoon nga ni namoon nañ la ñu wax ko rek benn yoon. te non xam naa loolu. xam naa loolu nga ne it woo naa la. ni mu ni mu ni ngeen ma recevoir ni ngeen ma accueillir laa xam ne namoon ngeen ma. waaye kon namoon ak namoon na la. dëgg baax na imaam dama mer. mer. Mhm. boo meree ma génnaat kii bi. Ah, waaw waaw boo ah, meraat may génn. Hmm? ah man nee na jékki-jékki rek ñu feral ñu. de feral. ma koy war fépp feral. Hmm? ak ni nga bëgg a ma ni daa gaaw di. ak bi nga bëggee maam imaam ak ni nga mel ci ñun mu fonk la sopp la lool. Ah. ah yàlla yàlla def nga nekk suñu kilifa fii. waaw ah mais lu ñuy def. sëñ Ousmane yi jënc na sëñ Ousmane la de. ah, ah. Ousmane moomu feral internautes yi Ousmane la. Badji Badji nee na. Eh? ah imaam ñëw na tey mu neex. Eh, kuy Badji. xanaa bitim réew lay eh, wax ci commentaire yi la internautes yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. waaye nag namoon nañ la. en tout ñoo la raw. Ousmane la Ousmane la du Ngone. Mhm. du Mami du Nabou. Mhm. Ah, Ousmane baax na en tout cas daal ñu ah, xamee ko noonu sevrage brutal baaxul. baaxul nee na nangu na kon jeex koy def ah, nànk di di root ci affaire yi nànk nànk ba xale bi bàyyi. woyof na woyof na ayca jërëjëf jërëjëf Imaam am nañ mbégte bu baax ama amaat la ci. Euh, plateau bi alors. ñu daal di euh, ñëw ànd ak euh, ajaratu ngoone ci cas sur euh, cas mhm. da ngay ñëw ak ci accident bi nga xamante ne démb moo am ci yoonu Diourbel Mbacké ñu ci profité di jaale doomi Sénégal yëpp ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokk ci région bu Diourbel ndaxte bi ñuy laataa ñuy soog a yëg xibaar bi juróom benn nit lañ wax ni ñoo ñàkk seen bakkan finalement le bilan le bilan s'est alourdi ñu gis ne euh, juróom ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan ñu leen di masawu mhm. di leen euh, jaale seen famille bu baax a baax ñaan yàlla yërëm leen xaare leen ci firdaws alors ñu ngi lay bàyyi nga dugal ñu ci loole daal di ñu ciy indil euh, lu gën a leer ci suñu bopp fi ñu ko daanalee dañ koy eh, tàmbalee di leen eh, ñaanal mm. Mm. Eh, yàlla xare dañ càdd ñu gën a kawe ci accident bi nga xam ne mm-hmm. nag démb dañu ko daal di yëkk ci ngoon mm-hmm. muy tali boobee dox ci diggante Diourbel ak Mbàkke juróom benn ñoo ci ñàkkoon mm-hmm. seen bakken waaye bilan ba mujjee naa nag gën a sax romb loolee ñu gis ne nag daal lu ñu wax ni ci tali boobee itam am na ay jafe-jafe yu fa nekk te yàgg nañu di ko signaler Euh, waaye itam ci information yi nga xam ne ñenn nit ñi dëgg nañ koy am bi accident bi amee wax nañu ab oto euh, bu jóge woon ca Touba moom daal moo jàkkaarloo ak benn camion bu jóge woon ca Farafeñe euh, ci beneen sens inverse sax la doon dawee circonstances exactes yi tax nag accident bi am kan moo doon daw ci sens inverse oto bi ñoom ñaar kenn bokk ñu sens ah, bi ñu jógee. ah d'accord d'accord d'accord d'accord. dañoo tase dañoo daje. dañoo daje d'accord. li tax accident bi am nag kenn xamagu ko. pollution mhm. la waaye wax nañu ne daal ak famille eh, lëmm. Mhm. ñoom ñoo ci daal di ñàkk seen bakken. ni ñu juróom-benn la ñu waxoon ci eh, doox gi mhm. mu jéggi nag mu dem ba juróom gis nañu victime yooyee ñoom ñëpp yóbbu nañu leen ci hôpital eh, rawatina ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu am na ci ñaari liir yoo xam ne dañoo àndoon ak seen yaay waaye ñooñu dara jot leen ah, ñu ngi ci ci euh, euh, surveillance mm. secours yi ne nag ñëw nañu ba ñu leen ko euh, santé enquête ubbi nañu ko ngir xool lan moo waral lu ni mel waaye la wax ne mën naa nekk ab défaillance mécanique wala loo xam ne ab tayef la muy erreur humaine lu ci euh, ti am daal euh, tali bi euh, ñi ngi wax ne li muy faral di am ay accident bari na ñi fay aw diggante Diourbel ak Mbacké dañuy wax ne nag lu jëm ci mesure de sécurité yi doyul lu jëm itam ci éclairage public bi mhm. loolu itam ñu ngi ci ñaax communauté locale bi itam nekk ci naqar autorité yi itam gis nañu ne ñenn ñi daal dem foofee jëm ci résultats yi famille victime yi nga xam ne ñu ngi en deuil ñoom nag euh, daal la ñuy euh, demandé euh, mooy ñu daal di gën a bàyyi xel ah. tefaktali boobu waaye itam def ay làmp bu ñëpp di mën a gis naam sax accident bi ba muy am ci ngoon la woon waaye lu jëm ci wàllu éclairage bi nekk na loo xam ne seen fa càkku la en tout cas lu ci mënti am ñooñee nañ leen denc hmm. waaye itam ubbi nañu ab enquête ngir mën hmm. a xool ndax défaillance technique la wala ab tayef boo xam ne dañu doon dawal ñun ñoo ko daal am hmm. jërëjëf eh, Ajaratu Ngoné laata nga ñëw ci beneen eh, cas bi eh, ñu daal di ci taxaw waaw Ousmane ñu ngi doon wax parce que balaa may ñëw ci yow sax ma njëkkee ci imam ngoone nee na bu ñu ko sayto ba ci biir boo moytuwul mën naa nekk défaillance technique keroog ñu ngi aborder sujet bi waaye ñu ngi doon wax ñi nga xamante ne oto yi nga xam ne buñ la rombee li ngay njëkk a laaj mooy fan la ñu jaar ak nan la def ba am visite technique. waaw loolu bu ñu ko seetee. Mhm. danañu duut baaraam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci di contrôler visite technique bi mais gis nga ngoone su ma waxee du neex bërki démb RTS <coughs> dañ leen fa invité su ma juumul góoru xuma moo waroon a ñëw mais à dafa am ku mu yebal ku ñëw mais wax bu dofee nopp yi koy déglu war a nite mhm. euh, ni mu waxee ci biir waxam yépp man su ma toogoon ci débat bi fenn rek laa koy kale mooy ni accident mënul ñàkk parce que ñu nag accident dëkk hmm. te ku ne accident ne dee ku ne mhm. accident ne dam ne damm mook ñeenti xaraf yi kuy bëre bul bañ ñetti xudda ma du kuy bëre bul bañ sa yëre xotteeku kuy bëre bul bañ damm kuy bëre bul bañ mer kuy bëre bul bañ daanu donc yi moo ànd ak bëre mais boo nee accident mënta ñàkk d'accord mën nañ xam ñaari yoon ci at mi est-ce que yëg nga ni bi ñu bi ñu bi ñu calculer euh, année bi yëpp li ñuy def ci accident su ma juumul noté naa ko ngeen baal ma cinq secondes rek. année bi yëpp li ñu def ci accident quatre quatre mille accidents. quatre mille accidents par an bis bu nekk booy compter accident bu am ñaari nit danañ ci de léegi multiplier nga xool nan lay toll donc ñi nga xamante ni ñoom lañ chargé pour ñuy contrôler oto yi moo xam visite technique la moo xam lu mu mënti doon fautif lañ waaye nag chauffeur bi nga xamante ni moom te visite technique am na lu ci xew nabu waaw xam nga lan moo ci xew léegi ñu bëri duñ ko defi seen kër la ñuy toog am lu ñu yónnee. Mhm. ñu indi leen kayit bi wala ñu yónnee cek ceg mu dem jëli leen kayit bi ñu indi taf ci seen oto. Mhm. mais barki démb bu yàggu rek le premier ministre am na accident bu am ci yoon bi mais nan ngay xoolee pono oto pono oto nga dem ba rëyir yi. Mhm. dara desatu fa dara desatu. mais waxuma dara desatu fa demal fii ci wetu grande mosquée. à ta am na ñu fay jaay photo euh, pono pour bañ a tudd ay tur boo fa demee ci biir waxuma yi ñuy exposé ci tali bi de dañuy jël ay paaka di dagg pono yi pour mu am ay rëyër waaw mais pono bu ñu jël yow ne la date bi la war a jeex nga jënd ko yow ngoone ci duwal ko ci sa oto mu nekk pono yu bees nga daw ci tali bi ba mu raser ba jeex nga génne ko sànni walla nga